laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah عكفت على باب النبي محمد ومن رام دري فهو أجدى وأنفع بمكة بالمسعى بخيف ومشعر ضياء رسول الله للترفي المعو بغار حراء بالمحصب لا أرى رفيقا سوى الهادي بي أتمتع محمد عبد الله أحمد واقبا بحب الإمام الهاشمي أتشبع عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نظير ما هي الكفر أروع مكي ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى غاد البرية أطمع أيا جامع الخيرات يا ملجأ الورى فصلني بحبل لا يرى يتقطع laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah alayka salaatullahi summa salaamuhu fa inna fuaadi indaka dahra ajmacu عليك صلاة الله ثم سلام فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلامه لقاء كحصو الطير للقلب موجع ويوم كألف من سنين أعده قصيرا فما نفسي بذلك تقنع عليك صلاة الله ثم سلامه على رغم أنفي بالسلام أودع عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف رجع عليك صلاة الله ثم سلامه مدى الدهر دين المصطفى القرم أرفعه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 nit ñi jàpp ne euh, premier ministre lu fi waroon a am la ndax boo xoolee ci yeneen dëkk yi les premiers ministres ils sont franc Castex France ak ki mu wiit ak ki nga xamante ne moo ko fi wuutu ñoom ñooy dem avant les présidents sax ñoom ñooy dem au front c'est vrai les ministres de la santé ils sont là mais aussi euh, premier ministre ñu bëri jàmbatoon nañ ko fi ne maanaam xajoon na fi yow nga nekkoon premier ministre ñu nekk ci jamonoy mbas dëkk bi ami jafe-jafe yow lan nga ci xalaat premier ministre mën na ñàkk ci jamono ji wala loo xamante ne faw mu am la. waaw ah, man premier ministre laa woon su ma toogee ne la premier ministre amul njëriñ kon boobu vraiment <laughs> waxuma loo xam ne lii ànd naag ànd naag sens mais choix wu ki nga xam ne. moo yore exécutif bi muy le président de la république. noo jàngatee choix am choix bi la ñuy wax. waaw personnellement je pense que premier ministre am na njëriñ ci réew. fondamentalement surtout que suñu problème yi dafa compliquer dafa yaatu euh, di décentraliser. Euh, exécutif pour man am na solo pour man sama sama position la. bi mu koy euh, supprimer tàggu woon na la ci. ah non amul pour tàggu ma. waxtaan comme yéen a doon ànd à l'époque. non non amul pour <laughs> amul pour pour information lañ ci am voilà après loolu loolu loolu am mais journaliste moom. dañu jóge ci bébé yi yegg ci premier ministre sans escale. non c'est c'est pas a la transition madame la première ministre. il a la transition parce que vous de santé. voilà c'est lié c'est l'exécutif. Mm. mais l'exécutif de la santé d'abord. Euh, loolu lañu war a gën a waxtaane parce que mhm. yàlla dafa def man bi ma nekkee Nations Unies dama liggéey ci Fonds des Nations Unies pour la population mhm. santé de la reproduction euh, laa doon liggéey pendant mhm. voilà plus de vingt ans <laughs> lii c'est un problème aussi issu de la santé de la reproduction c'est des bébés prématurés donc gouvernance su santé euh, moom la ñu war a gën a xoolaat ba nga xam ne bi centre de santé yi ak comité de santé yi dinañu renforcer seen action mu doon aussi action boo xam ne du doon rek concertation waaye problème yi nga xam ne waxtaanee nañ ko muy la qualité de l'accueil la qualité des services euh, la propreté des postes de santé sa comité de santé bi war cee am aussi dogal war a mën a aussi superviser mën a ñëwaat seet euh, en collaboration bien sûr avec euh, le chef de district du district sanitaire et cetera mu am implication wu mm-hmm. la population parce que léegi gouvernance noonu la demee loo toog fee rek voilà di di mm-hmm. dicter il faut que population bi nga xam ne aussi ñoo bokk poste de santé bi ñoom it ñu am lu ñu ci mën a wax mm-hmm. mu luñ ci mën a contribuer mm-hmm. euh, loolu yëpp am na solo léegi ba nga nekkee chef du gouvernement yow lan nga def ci wàllu santé ngir renforcer justement cette gouvernance mais aussi démocratiser ko ba gox-goxaat yi aussi problème mu spécialiste comme ni ñu koy nemmee ko ci yéen di même gynécologue sax nga gis ko ci yéen dëkk yi Kolda moo ci mujj Linguère googu ngay wax amul sax pédiatre région bi yëpp benn pédiatre dafa am ci ba la nekk muy Louga premier ministre onze mois laa ko nekk nag yooyu xam nga problème yoo xam ne depuis indépendance la. da nga ciy contribuer xanaa am nga loo def nag euh, onze mois. ah bien sûr eh kay di nga voilà entre temps il y a du personnel qui a été affecté et mais li problème mu long terme la parce que aussi euh, bu nuy wax rek te war a objectif problème bu daté de 1960 doo ko régler en un week-end ou deux week-ends ou un mois. il faut que ñu teg maanaam déjà réflexion bi na commence c'est-à-dire li ñuy wax rétroplanning. maanaam incident bi am na nañu seet lu tax incident bi am ak nu ñu war a mën a def ba incident bi bañ a amati def naa ci fàll boobu ci la ñu toll et loolu am na solo ci man du se incident bi am na mais am na yeneen i incident hmm. man bu yàggu rek suma benn maa ngi maa ngi jaale famille am euh, Kolda la ne woon su ma xarit la woon les amis de Mimi dafa voilà réew ay séex joxe message voilà mooy enseignant voilà mu ñu teg ci quelque jours moo yàlla moom ko vingt et unième siècle euh, amatul yooyu dootoo ko gisati ci dëkk tubaab donc loolu dafa laaj ñu toog waxtaan lu tax yooyu di am ak nu ñu war a mën a fexe ba dootul am te li ma jàppee ne ni ñu war a fexe ba dootul am mhm. euh, mooy aussi une grande implication des bénéficiaires maanaam ñi nga xam ne ñoom la ñuy jox santé ñoom it aussi ñu gis ne am nañu droit ñëw bu ñu organiser woo euh, parce que dinaa ñëwaat xëy na ci système mu système mu développement la sax parce que mhm. santé xëy na point d'introduction la pour man li ma jàpp mooy fii développement toll. Mhm. Euh, bu njëkk ba li li américains yi doon wax top down la maanaam da ngay ne ca kaw ministre bi directeur bi après di chef de district bi ñu wàcc ba ci suuf mais xëy na dañu war a renverser. ni ñu voilà ni ñu koy gise mooy commencer ci quartier bi. quartier bi mm. fa la dispensaire bi nekk mais quartier bi aussi fa la école bi nekk. quartier bi ci la ñu war a def entreprise bi commencé nag yéeg jëm ci kaw parce que wax nañ affaire u emploi sànq euh, emploi ñu loolu ñu ngi koy wax depuis de nombreuses années soo jëlee téeméeri sénégalais juróom-ñaar fukki yi amaguñu fanweeri at ak juróom donc dañ soxla liggéey mais ñi nga xam ne aussi ñu ngi doon liggéey parce que ça aussi bu ñu koy wax c'est l'emploi des jeunes et des moins jeunes mm-hmm. dafa am solo parce que ñiy liggéey aussi ñu fi toog fii xëy na am na ñu ci amul 35 ans mais am nañ liggéey bi ñu yor aussi. Mm. bëgg bëgguñ liggéey ba dem. c' est l' emploi ne jeunes yi la mais c' est mm-hmm. boo koy xool ci quartier bi. foofu la suñu développement war a commencer. Mm-hmm. am na ñu naan la commune même commune dama jàpp ne dafa rëy. Mm-hmm. mais après nga koy agrégé. tey su ñu doon def développement. à la oh, base bon dégg naa ci conseil des ministres ñu ne il faut ñu décentraliser au maximum ça c'est bien mais il faut que ce soit très précis mooy le comité de quartier booy xool loi wu décentralisation comité de quartier bi mu ngi ci loi bi. Mhm. mais comité de quartier yi amuñu benn voilà substance. voilà du ma ne njëriñ parce que tegginewul mais daal seen jumtukaay des na. Mhm. tey bu ma yoroon po buñ bu doon bu ñu doon wax waxu développement euh, création d'emploi. d' abord il faut ñu xam ne mënoo créer ay emploi te créer woo production loolu it aussi ci waxtaan wi dafa am solo mhm. fii ñu toog ñun ñëpp boo xoolee sa bouton simis yi nga sol euh, xëy na babouche yi fii lañ koy defaree ngaay xëy na babouche yi rek ay rëcc ak dàll yi am na jóge waaye tissu bi euh, bouton yi mhm. euh, lépp bitim réew lay jóge noonu nag mënoo cee créer emploi mun a nekk donc il faut que ñun production ñu def ko pour que suñu. mais madame wax ni nag il faut ñu bala ko du maane allah ci seexirim way wi yaa may sa alaaji Cheikh Yérim baax ma na amul moroom ku weddi lii sama ma firi alquran Cheikh Yérim mbaa xam nga ni la ca Ndar loolu di ci ñëw waaye xam nga ni ma nga juddoo Ndiob. di ci ñëw incha allah. mais sa xarit jërëjëf. du ñu sori ak moom de. déedéet tey Pape Cheikh lu waaye bëgg laaj na ko laaj. jeex na ndax mooy magasinu Cheikh na seex Cheikh na seex Sall wallaahi ko xeertu. wala Thierno. Uh-huh. xam nga El Hadj Pape jàll Diallo yow rek la bëgg <laughs> daaneel nga ko bu yàgg ñëpp bég na nu. Euh, Cheikh Baye Cheikh. allama alquran moom rek mën a jàngale alquran bu ah. ah. di sànni allo ji. bu amee ful la. la ilaha illallah xoolal sœur ak frère yi ñu am foo romb cheikh na cheikh Saadu ma ngay nelaw ba bind bés cheikh mal aynin mi ma la wax léegi nga xam ne mooy borom naatu bidaaya moo jaxal moo jaxal Maroc ci xam-xam moo magee cheikh na cheikh Saadu vingt cinq ans vingt ans vingt ans vingt ans waaw di ñaanal buuru Maroc waaw Mohamed cinq jilal sam moo tax e bi nga xamee nii Euh, la fille du du du du du du Hassan II a eu des problèmes mentaux dañu jëlee Cheikh Aya l'actuel président Khalifa. Khalifa ak Cheikh na Cheikh Abdou Aziz sama sang sama sëriñ ñoo ko ñaanal. Hmm. ah télé boo ciy wax waxal loo xam de. dëgg la de waaye ndokk yàlla yàlla baax na. Oh. <laughs> Cheikh Baye Seck. mais sa xarit bi ci bi ci njob. mu ngi dégg kenn du ma faa nga làmbaay ma daawul ñëw Cheikh la ilallah jëree nga mbéy gitee nga mbéy jam yaa nga mbéy fas yaa nga mbéy Cheikh Ibrahim sa maama ñu ñu denc fii soriwul de mu sa cëm gaar ah, waaw Thiès Tivaouane ma ñëw ci Cheikh na Moussa ne ko allo bi nekk ci boppam di nelaw benn bés baayam di dem ci jàkka ji timis ànd ak cheikh maal ay nii ñu ñëw fakkataloo ko mu tëdd ci yoonu jàkka ji di nelaw waaw moom cheikh na cheikh waaw cheikh na cheikh saad xeer xeer chérif cheikh maal ay nii ah hada saad kii saad la hmm. ni da koy yee baayam téye ci ko kii wute naag ñun de hmm. ñun lii ñu am xam nga liñu ñu ko amee kurut yeeg jàng alxuraan yeeg naafale yi kii nag ci nelawam ñii la ko amee wa ida al inayatu la axadat ko uyunuha num fal maxaawifi kulluhunna amaanu wa ida al inayatu wa ida al inayatu la axadat ko uyunuha num fal maxaawifu kulluhunna amaanu mm. ku wax loolu bàyyam Cheikh Mouhamed Cheikh Mouhamed Fadel mm-hmm. mu téye loxo Cheikh Mouhamed Mbeleye waaw ni ko kii xaaral ma wax la ci moom mm. li ko dal mooy ki nga xam ni moo sàkk nelaw sàkk xam-xam sàkk wilaaya sàkk sécurité mën a garde moo koy garde ci nelawam yi di def ci moom loo xam ne ñun bala ñu koy am ñu jullee ko wóor ak naafila ak lu ne hmm. Cheikh na Cheikh Saad bu bu ci nelawam la koy am ko yàlla yu sol la ñee wuti yàlla yu maye hmm. yàlla mën wax bi yu la hmm. c'est wax bi yu da koy wax plus tard alhamdulillahi alladi li wahab علما وحلما وتقا كذا النسب الحمد لله الذي يا وهب اه الحمد لله الذي لي وهب eh ndok yàlla yàlla baax na maa ngi lay sant yàlla yow mi nga xam ni yaa ma may yaa def ci man xam-xam wa xilman ak générosité baax ak ragal ak askan wu baax yàlla ni mi nasi taaxa ahmada dafa ndànk nu ñu tooj loolu nag ilman waaw ilman eh xam-xam boo xam ni bi kenn mënul ni maa jàngal cheikh na cheikh Saad bu te moo raw ci àddina cheikh Saad bu nee na ilman xam-xam boo xam ni bi wax bi wax bi yu la koy dee di ko sol moom cheikh na cheikh Saad bu brab nim saat nee ilman yaa man tanazaha bil kamaali an waladin wa walidin xusa bil baqaayi wal kidami yaa ko wax borom nim jaar xilman wa xilman cheikh Sadbou nee na ilman mu teg ci xilman wa xilman générosité wa tuqaa wa xilman xilman mën nga am ay milliards cheikh Sadbou nee na xilman mën nga am ay oto baram gànnaar nee na wa xilman waaye wilaaya doo ko maye cheikh Saad bu ne wa xilman. ku ko fi am téyel nga ko sa bopp sa doom sax doo ko jox. cheikh Saad bu ne na wa xilman. cheikh na cheikh Saad bu jox ko Irim Dambaan jox ko cheikh de Calaw. borom gànnaar nee na wa xilman. jox ko cheikh Amadou Ndiaye cheikh Sadbou ne waxil man jox ko cheikh Youssouf Babar Gueye jox ko cheikh Alpha Diol. borom saalixiin ak nee na waxil man. jox ko cheikh Amadou Lo jox ko cheikh Amadou Jëmbëre. cheikh Sadbou ne waxil man. jox ko cheikh Amadou Ndiaye jox ko cheikh Cheikh Faye Diouf. borom gànnaar ne waxil man. jox ko jox ko jox ko dina leen lim léegi. cheikh Sadbou ne waxil man. xoolal lu ko jiitu bu ko def bu ko defoon fii rek bàyyi gànnaar Moustapha ay gànnaar la ko jiite. borom gànnaar ne waxil man. bu ñu yàkkamti téyel foofu ma ñëw ma développé ba ci kanam. day bay si bay si maam fii rek nga na Cheikh Saad Bou. mu dugg ci bibliothèque baayam boobu. saaka yaakaar la maay bala ko du maane maay. alaaji Cheikh Yirim. wala yaa ko maay. Saar way wi yaay boroome jarama cambaay saaka yaa nga lambaay bala kaddu maane mbaay allah ci seexirim way wi yaay alaaji Cheikh Yérim Dumbaan mu baax ma dem na amul moroom ku weddi lii defal ni moom ngir sa boroom sama ma firi alquran dem ba Makka ànd ak sa doom قدر شغلي نتواصل مفاد القالي صلى الله عليه وسلم وبدا درة اليتيم تحسنان وما علي في رقاب البال صلى الله عليه وسلم دام أمل الأدي شعورا أقوى تسعة لم تخشد له بشقال ينتي الله محمد بايا نجي تقي ينتبي صلى الله عليه وسلم baay a ngi tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baay ne jaa oxo taluqu وهي في دار فردا فأتى القرب بغتة بتوالي صلى الله عليه وسلم وأتت قوابل أم عيسى ثم آسية الأتات للعلي ينتي على محمد وأتت ألم لقشوم تدلى نور كل نجوم العلم إفدالي صلى الله عليه وسلم ودعت أو بالردم والشعب قول جل رجال صلى الله عليه وسلم إن شاء الله واو أها آمين آمين nga xam ne xam na ko alaaji pap Maulana Cheikh Ibrahima Niass dafa judduwaale ay mayam bi ñëpp di bàkk Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn kàddu rek la ko dóor ñëpp joxe loxo xam nga mooy lan nuuruhu awwalul wujudi wujudan nee na daal ak lu mën a xew lu fi am lu ne ba nu mën koo bëgg mi ngi amee ci darajey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alaaji Pape uh-huh. Maulana Cheikh Ibrahima Niass mii uh-huh. boo dee lim nitu yàlla yi doo ko tëb dafa jubóog boroomam uh-huh. alaaji pap mbaa xam nga ni dégg alquran ak mën a firi alquran kenn dabu ci Maulana Cheikh Ibrahima Niass. te ko écho ba guddeem gi ba quartier général am. waaw alaaji alaaji baay damaa daanu ci ni muy joobe yonent bi xam nga soxna Ayda mii dafa wax ne. muhammadun basharun laakal bashari xam nga lu muy firi. bàyyi dani muhammad mii ñu ne waaw. mu ne basharun nit la <laughs> waaye nag laakal bashari ak wuteeg nit ñi. <laughs> وليس كالبشر سر في الحقيق وربي تعسمع محمد همدتي محمد الوزري أنا تقبيلي وابني مسمع alaaj baay Maulana Sey Ibrahima Niass dañu gaañi feebar naa de ñëpp ñëw fëx ni ko lu la dal mu ne sama xol bi mooy xotteeku ñu ne ko tee ñu laa wool médecin yi ñu opéré la mu ne déedéet ki koy xotti mooy sang ba tëdd ca madinatul munawwara te mooy sayduna muhammad Pape Baye daa fàttewul yonent bi xam nga lu tax man mhm. Mansour nee na ku tax nga xew ba ni xew buñ ko dee xewal war ngaa teew mhm. looloo tax baay jox léppam sayduna muhammad xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara bëgguñ dara